rahmatullah taala barkatu ñi <clears throat> ngi nuy ñep di ziar ñep di magal ñep di ndamo di titero man la sen mbokk patriote compatriote sénégalais mola morgan di len bëggé bu wër yé té nak ma ngi dogo <clears throat> a ni li ñu ñëk def moy di remercier les patriotes sénégalais yi nekk Canada ci rassemblement bu taywar bi nga xamni amna tay metro Snowdon ñu def ben marche vraiment Euh, ay jàmbaar lañ ku xool ci ñoom rek ku xool ci ñoom rek war nga mun a fas jom war nga mun a yokk Pastef xam ni combat bi dafa dépasser no frontières mais combat boo xam la combat patriotique la boo xam ni euh, bépp sénégalais bu retrouver wu ci dans le patriotisme ci bëgg sa réew ak fu la sa réew toll euh, ñëw nga tey assister ci li nga xam ni moom mooy marché bi am fii ci Montréal et que gars yi ñi ngi yéegal xeex bi ci yenen niveau yu gëna international ñi koy internationaliser euh, il s'est trouvé que légui patriote bolé nañ bind nañ ay plainte dugol ko ci parlement bi vendredi Inch'Allah, euh Ottawa moom mooy aaye euh, les patriotes sénégalais yi nekk fi ci Canada yépp dinañ daje le vendredi Inch'Allah, pour dem yóbbu plainte yi au niveau du parlement euh, canadien pour bolé ji Macky Sall

tout agit euh, différent, magie, yi mag yeeg xale yeeg nañ ci sedd vingt cinq degré muy kaw de di ni Macky Sall dictateur le Macky criminel Macky assassin donc vraiment macha di di nous euh, canadien taxaw ans di sincèrement tay ñëpp ñu romb nous rek gis nañ ni ndakate amna dëkk bu Sénégal dirigeants yu a la yor ay lañ yor dañuy wër ci international bi di doomu euh, seen dëkk démocratie amna liberté tandis que Sénégal amul démocratie amul liberté amul dara lu dara jeex amul lu fa de grand chemin tay euh, lu Nous

ci at ci ci heure yow nga fi donc nous ñep une notification yi da nga gis ne en 2011 ñi taxaw tay ñi nga xamni yalla bayyi Nous leen fi lañ doon en 2011 ñëwaat nañ ci même place yi diko xex loolu loolu la vie. Nous avons regret démocratique donc ñun suñu réew il faut ngeen xamni yaakar naa ni bu dee ay sénégalais ñoo nekk Canada fii moins 25 ñuy génn moins 25 ñu génn ci neige bi ci bu day taxaw ci mbedd yi muy nees seen kaw ñuy yuuxu Macky Sall dictateur Macky Sall assassin te ñooñu ñooy liggéey ba sonn dajale seen alal yónnee lañ ko yéen Sénégal ah dama ne nit nag dangay ngay gore wét gore wétalu ko gore man doomu aadama du nekk ci sedd bi moins vingt cinq moins trent di dugg ci nees bi di xuus ci nees bi di ma xeexal te mu wóor ko ni man li ko li ma dal dalu ko donc bu dee canadien sénégalais yi nekk Canada ñooy si biir lu mel noonu kon yéen

non bu munul nek munul am donc loolu Sénégal lañ ko mën def donc moy institution yi nga xamni ñi mi ngi xew Sénégal Sénégal rek ñoo mën jox xex ko amna lo xamni ñu la nit bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg munul ñëw ba ci sa biir kër di la décider yow yaay décider sa bop ñu ñu mën ci and donc ginnaaw bu ñu remercier le peuple sénégalais bi nga xamni mi ngi tay Canada ñi ngi def ay djégo taywar ma maa leen ko yëgal ñi boole nañ ñi ngi boole Macky Sall euh, parlement bi fofu la autorité yépp nekk boole nañ Macky ak ministre ministre des affaires étrangères Canada yor na lettre bi jox nañ ko ko téye na ko liir na woote na téléphone gars yi woo nañ ko direct donc Canada sénégalais yi ñi ngi def lu doy waar ci liggéey bi muy liggéey bu international lu ñu daloon en 2011 dal ñu 2012 ba léegi moo nekk dañu dal te loolu yaakaar naa ni béy wéy na mbuus nag dafa war a jeex dafa war a dakk dafa war a dakk dafa war a jeex léegi nag sénégalais yi ñooy war a

loolu kon ñii c'est un terrain déjà acquis terrain bu acquérir ba légui moy bu Sénégal Sénégal mo am ay achat de conscience Sénégal lañuy jënd doomu aadama yi Sénégal lañuy solo ay yéré ay doomu aadama duggal leen ci ay car rapide Sénégal lañuy jël ay sénégalais jox leen ay sifflet Sénégal lañuy jël suñu yaay solo leen ay khartoum malgré que gëmuñu ko mais ñu ngi leen di utiliser di won benen peuple bi wala à l'extérieur wala à l'international que dëkk bi dëkk bu jaar yoon la donc yéen ay taxaw li fi amone bagn fi amaat li def Ousmane Sonko buñ ko koy faral di def Ousmane Sonko du fekk que 2024. c'est clair c'est sûr et net on ne peut pas même accepter on ne peut même pas accepter Sénégal 17 ans, ñi japp Ousmane Sonko diko wutal ay itinéraire musuñu wutal Ousmane Sonko itinéraire te jéemuñu ko sank il faut ngeen xam lolu Sénégal.

nuñ ko renseigné woon ne ko bul jaar foofu ci corniche ba moom xam na ko parce que boobu guvernement Macky Sall bi teg nañ fa ay junniy nerve juróom-ñaar bu ñëwee ñu dóor ko ay ay ay ay ay euh, brique ko ay brique assassiné ko donc loolu moo waraloon coow loolu jaaral fii du ma fi jaar jaaral fii du ma fi jaar bii passé nii nii nii nii nii nii nii lan lañ waajaloon ci suufu euh, pont bi foofu lañ waroon foofu woon Ousmane Sonko lu ma leen di wax rek baatin la Ousmane Sonko yàlla moo ko fal nañ ko faale ku faale wul Sonko bu leen ko faale loolu mooy bu ma leen wax ma waxaat leen ni ne leen Sonko ku ko songu sànku loolu nag baatil la maanaam gis ngeen waa ji yàlla moo ko fi teg doomu aadama bàyyiwu ko fi te doomu aadama du ko yóbbu wax jooju wax ju baatina la doomu aadama man mi yàlla may baatin ba ba ma gis ni waa ji ku ko songu sànku ku ko jéem a yàqal yàqu yàlla moo ko fal kon nañ ko faale ku faalewul sonko bu leen ko faale ndax yàllaa ko fal moom moo ko faaleel boppam moo ko falal boppam moo koy protéger chaque fois bu jógee pour jël intention dañ koy liquider wala dañ koy rey moment boobu noonu la yàlla di wane dooleem sonko bu fekkul woon oto boobu noonu nga xam ni moom moo jiitu oto bi jiitu parce que ñoom foofu lañ bëggoon génne sonko liquider ko fa ci suufu pont bi foofu noonu ci tunnel boobu foofu lañ décidé woon ci lëndëm boobu sans caméra lañ décidé woon loolu benn oto moo koy benn oto euh, euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne moo jiitu yore woon caméra bi oto boobu noonu moom moo yeexal affaire bi moo tax bu ñu collee foofu après après dañoo você pont bi rek ñu arrêté Ousmane Sonko génne ko foofu donc ñoom ñi ngi bëggoon sànq Ousmane Sonko ci suufu pont boobu pont bu lëndëm boobu noonu ngay gis noonu foofu la ñu waroon jëlee Ousmane Sonko foofu la ñu doon extraire Ousmane Sonko ñoom extradition extraire lu ko extraire noonu ci biti ci biir pont bi la woon te dañ ko bëggoon extraire te oto boobu noonu du ko xool donc oto bi nga xam ni moo nekkoon ci kanam waa ji yore caméra bi oto ñoom Ousmane Sonko la boobu moo yéex moo leen yéex a génn boobu bu muy génn fekk Ousmane Sonko mi ngi ñëw di kale ci wet ci wetu oto boobu noonu loolu moo leen mayul temps parce que dañoo bëggoon jël ko foofu noonu te kenn du ko visionné donc loolu moo dimbale suñu borom subhanahu wa taala moom moom ci boppam mu dimbale Ousmane Sonko ba oto boobu noonu nga xam moo newoon ci kanam waa ji yor caméra bi loolu moom moo tax mujj ñëw extrait Ousmane Sonko foofu comme dañuy yàlla moom moo leen indil foofu ay ay euh, ay coono wala ay tolof tolof wala ay gàllankoor ba ñoom mu extraire ko ci lëndëm boobu noonu te ñoom ñoo force Ousmane Sonko duggul loo ko ci suuf pont bi parce que Ousmane si kaw la waroon jaar mais lan moo tere ñu Ousmane Sonko jaar ci kaw pont boobu gàttul da ngay jaar suuf rek génn dem ci kaw donc loolu lu ndaw la lan moo tax espace bu ndaw boobu pont boobu ñu bëggoon forcément Ousmane Sonko jaar fa c'est parce que foofu lañ bëggoon extraire Ousmane ko ci lëndëm boobu sans caméra ni vidéo extrait ko djel ko yobou ko disparaître ak mom dóor ko seen empoisonnement delloo ko keureum taxaw donc kon suñu borom subhanahu wa taala mo sauver fofu Ousmane Sonko encore une fois kenn sauver ko kudul suñu borom subhanahu wa taala à travers auto bi nga xam mom mo jitt won yor caméra bi lolou kese la n'est clair merci beaucoup nana billahi c'est la réalité j'étais j'étais témoin man c'est des gendarmes Ousmane Sonko lu wax deug la gendarmerie police dañoo divisé un gendarme euh, GIGN ci boppam me ma un gendarme GIGN ma renseigné je Ousmane Sonko da ngeen ko perdre Je ne que ah pas ne ma waaw ci suis pont boobu ñu ko ne mais ben oto bu nekk ci de oto kanamam boobu caméra parce que vous woon am image. mais c' était réunion bi c' était ça l' intention c' était de l' extraire si suufu pont bi la ñuy arrêté ci lëndëm bi rocc ko génn dugal ko seen oto yóbbu disparaître ak moom. ñu ne Ousmane Sonko bon ñoom gisuñu ko gisuñu ko wala lii laale raconté donc yàlla moo ko dimbali yàlla moom moo ko moo tax ma ne leen li fi am waru fi amaat ay sénégalais mënuñu nekk ne dañoo gëm projet bi jaral na leen bakkan jaral na leen lu ne. Ousmane Sonko fait def live, il y a 50 000 personnes qui suivent. Donc, dans les lives là, les vues, 50 000, il doit y avoir 500 000 personnes dans les rues. 500 000 personnes dans les rues. Donc, il faut que ça soit clair. Ce que Ousmane Sonko, Lolo après, vous voyez, euh, après souffle, après le pont, vous me retirez les il Ils disent dit, oh, c'est gâté. Il Donc, le c'était de l'extrême à l'intérieur. Donc, comme Ousmane Sonko retient, génn foofu nag amatul li ñuy def moo tax ñu kale ko foofu noonu pour extraire ko fekk boobu cóol na ki nga xam ne moom moo dagg foofu génne chef yi ñoo ko woo parce que boo seetloo bu ñu arrêté Ousmane Sonko y a eu beaucoup de temps dañoo arrêté Ousmane Sonko otoom ñoom chef bi mi ngi yore téléphone ba Ousmane Sonko naan waa ji Ousmane Sonko il avait tout compris tout parce que mu ngi wax chauffeur bi naan ko ana téléphone bi ana téléphone yéen a ngi dégg ay waxtaanu téléphone ana téléphone bi. yow waxoon naa la ba Ousmane Sonko yow waxoon naa la day yor téléphone bi waaye dinaa ana téléphone même Ousmane Sonko téléphone am gis nga num ko bàyyee bu mi génn num ko bàyyee ci chauffeur donc waxtaanu ana téléphone bobu non ana téléphone bi jox ma téléphone bi ta woo ma jox mako ko woo ma yéen ngi dégg ay waxu téléphone woo ko jox mako pour mu jox ko chef bi bobu chef bi mom ci bopam mi ngi jox ay direction ay directives comme quoi que yéen li ñu leen santone defu leen ko ci suufu pont bi ngeen ko waroon extrait comme rëcc na leen ci suufu pont bi instant yi ñëpp a gis ñëpp a ngi seen bo leen ko jëlee delloo leen ko këram parce que c'est c'est foutu c'est gâté le plan c'était de le liquider à l'intérieur rocc ko foofu yóbbu ko assassiné ko wala empoisonné ko wala ñoom ñoo xam waree mais c'est l'intention c'était ça de le diminuer de le de le diminuer au néant xëy na ko bëggoon rey sànni ko comme ni ñu ko yàgg nañ def di rey ay nit di sànni wala ñu rey ko indi dugalaat ko ci oto wala wala ñu assassiné ko wala ñu pompe ko waree fa mais c'était l'intention c'était de l'éliminer quand kon ci suufu pont boobu noonu Ousmane Sonko Yalla, moo ko fa rëccal mu rëcc mais sinon moom foofu la doon dee foofu lañ ko doon sànke léegi nag li nga xam ne moom moo ñu dal loolu waratuñu dalaat waratuñu dalaat moom mooy di xulle di seetaan ñuy jàpp Ousmane Sonko di dajji ay portière, di di dajji ay vitres di ko rocci par la force di yenu di yóbbu c'était pas leur intention le le gendarme nee na ma l'intention c'était pas du GIGN l'intention c'était pas de gagner Ousmane Sonko de l'intention c'était d'éliminer Ousmane Sonko ci bir pour sans vidéo sans image tout moo ñu dugal ko fu Pour foofu il pont a yàggul il deful deful 5 mètres faut 5 mètres deful dix euh, deful un kilomètre pont tunnel faut un kilomètre tunnel amul lumière amul dara Ousmane Sonko di faut Il le lañ ko extraire

man maa saña a wax loolu ku taxaw sax wax loolu Sénégal ñu jàpp man maa ko wax man Mollah Morgun des sources de la gendarmerie nationale du GIGN ñoo ma ressourcé loolu ne ma Mollah waxal patriote yi lii am nii bu amaatee Ousmane Sonko dinañ ko ñàkk parce que y a beaucoup de patriotes la gendarmerie y a beaucoup de patriotes dans la police te ñoom aussi seetaanuñ di bàyyi noonu seen xol am na lu ci nekk seen xol am na lu ci nekk ni ñuy toroxalee Ousmane Sonko seen chef yi ñu leen di yónni ñuy jéem ne dañuy rey waa ji wala dañuy toroxal waa ji ñoom seen xol neexut boo leen seetloo ki nga xam ne mooy commandant bi bu muy wax gars yi dajji leen ñoom ñi taxaw nañ di xool mu yuux seen kaw mu xabtalu mais pourtant gendarme yooyu noonu ils l'ont fait malgré parce que ñi ngi taxaw nii mu yuuxu mais vous attendez quoi là mais mais dégagez là moom bu sañoon dañuy ñëw jàpp Ousmane Sonko tënk ko te te l' intention mooy Ousmane Sonko moo nee naa leen Ousmane Sonko dafa ànd ak mbiru suñu borom Ousmane Sonko mbiram dafa laal suñu borom lu doy waar yàlla moo koy sàmmal boppam. gis nga boy boobu taxawoon noonu deuxième dan taekwondo la taekwondo deuxième dan gendarme boobu taxaw boy yooyu taxaw noonu wër ko deuxième dan ta xam lan lañ bëggoon Ousmane Sonko yëkkati loxoom rek gars yi escanté ko toroxal ko ba mu ne tott mënate ko dóor ko ci biir. Ousmane Sonko a été extraordinaire te loolu yëpp yàlla la nee nañ am na ñetti yaroo am nit dina yar boppam yàlla dina yar nit waaye société am dina yar nit mais moom Ousmane Sonko mën nañ ne yàlla moo ko yaral boppam mais moment boobu noonu ñoom dañ doon jéem a provoquer Ousmane Sonko moo tax ñu toj xam nga tey bu doon benn tànk chaine wala kenn ko mënul contrôler boppam kooku da ngay gis sama oto ngeen di toj waaye keneen nangam te booy yi ñu fa teg yëpp booy GIGN la ak BIP ñoo fa taxawoon booy yëpp ils sont ñoom ñëpp a jàng arts martiaux ñoom ñëpp taxaw ay deuxième dan ñii arts martiaux ñii ñii ay troisième dan ñii ay ceinture noire et cetera ñoo taxawoon foofu. ko tegee injustice bàyyil say caméra bàyyil sa portable futteekul taxawal xeexal injustice moom ndax buñ paré ci kokku ci yow la ñew donc injustice dañ koy xeex injustice kenn du ci rester inerte injustice kenn du ci rester neutre li nak am am na ba paré bëgguñu mu amati bëgguñu mu amati bëgguñu mu amati buñ bëggul mu amati dañuy wàññi wax ji dëggal suñu bopp dañuy wàññi wax ji jëmmal suñu bopp Macky Sall yéen xaw ma da di déglu Ousmane Sonko xaw ma mais da koy déglu mais ko dafa am déglu dégg déglu te du dégg dina dégg sax du déglu dégg dafa am dégg-dégg dafa am dégg ak dégg-dégg yég ak yëg-yëg yëg-yëg du moroomu yëg donc da ngeen war a taxaw sama gars yi li ab projet la bu ñu warul taxaw di ko xool chaque jour waxoon naa leen ko bàyyi leen filmer waate bàyyi leen filmer waate bàyyi leen di filmer di ko ex di ko jël di ko dugal ci net bi yéen a ngi ay junni junni combattant te xamu leen ko le combatant bi nga xam ni moo jël otoom bàyyi liggéeyam ñëw jël otoom def ci ay xeer yu raay ba mu fees dell indi ko jox ko ay combatant ñu jël ko di ko vidéo tey mi ngi ci kaso bi mais kooku lu ñu ñàkk vidéo bi ngeen seetaan noonu lan ngeen ci def ay reetaan ay kii guerrier la waajaa ngi ci kaso bi benn combattant de moins ak yeneen combattant de moins lu tax parce que képp ko waroon jël sa clando bu nga def lu mel noonu dootoo ko ñimeeti donc dàq la ñeneen te pourtant bu réussiroon noonu bu réussiroon noonu am na ñeneen ñuy ñëw génn jàpp mel noonu kon beneen yoon beneen yoon loolu mun na ay junni junni kalandoomaan indi seen kalandoo def ci ay xeer mu nekk maanaam communication euh, bu ñu boo xam ni euh, bouche à oreille la am na suñu xeex bii suñu xeex bii am na benn waay bu jël kalandoom def ci ay xeer mais bu ko kenn vidéo def ci ay xeer indi ko jàppale ñu ko gars yi nag waaw am na kay wala boo leen di vidéo ngeen bañ a kanam gi wala ngeen bañ a vidéo oto bi xool leen vidéo boobu lu mu yàq waa jooju déjà mi ngi ci kaso bi kenn xamul kañ lay génn vidéo boobu amul benn effet jógoon nga ko ci net bi mais amul benn réaction mu def léegi dina tax ëllëg kalandoo yu waroon def lu mel noonu dootuñ ko defati parce que gis nañ seen moroomu kalandoo maan bu def lu mel noonu mujj ci kaso bi donc keneen bu bëggee ñëw def comme kalandoo maan boobu lu mu def donc dootul amati te li amoon ba jàppale ñooñu ci xeex dootul amati ndax benn vidéo nañ bàyyi xeex bi ñuy jàpp di jàpp gars yi di vidéo bu fekkee ni seen vidéo yi dañ ko arrêté kenn dootu solati kagul ñëpp a ngi wut kagul adduna bi yëpp man fu mu ne nii li ma jot ay commande moo laa yónnee ñu ay kagul yónnee ñu ay kagul kenn xamul lu mu day yooyu lu ko waral mooy vidéo yi ngeen jàpp nit yi leen vidéo ci ay kanam ñun fi jàpp yëpp nee naa leen makki Sall ay nit la chaque jour mu wax ne lépp wax naa la luñ ce ma ñu wax leen ko leen xex dire Macky Sall koy ci xex bi ay caméra la wut monté partout tek ay projet ay nit yo xamni dañ leen tek fofu pour ñu tok jàkkaarloo ak yi di leen visionné di image di ko di leen wër di leen gis Sénégal Sénégal

mais arrêté leen di caméra doomu aadama yi di tëj lu doomu aadama yi di dugal affaire yi ci internet yi affaire bi du ay caaxaan affaire bi du ay foo ñu ay bakkan doomu aadama ñoo rot ay liberté doomu aadama lañ restreindre ay doomu aadama lañ dugal ci kaso yi dañuy xeex waa ji mi ngi yor ay nit yoo xam ne dañoo toog jàkkaarloog ay caméra kese ay policier ngan dem maa misaal ñi taxaw di note xool ki nang ñu xëc noté xol xol xol ba fexé japp ko xam ngeen ñaata nit ñoo nekk ci kasse bi ma ngi dégg ñu naan ay 113 c'est pas 113 mon frère y a plus de 165 sénégalais yo xamné ne Macky Sall jàpp na leen ci kasse bi ni 165 sénégalais man balaa maa day ñu naan ay ay ay 113 c'est pas 113 ñiñ mujjee japp yi ñëpp yóbbu nañ leen ñi ngi ci kasse bi li mujjee am ñi ñu japp boy yi japp jàpp ñi ngi ci kasse bi mais 165 personnes une mais ça pas c'est pas c'est pas deux personnes 165 personnes unités, c'est pas deux personnes Macky Nous, ñun effet sans cause nous 165 nous, ñun yàqaguñu le mat 100 non c'est pas 133 c'est ça dépasse Nous lu xew amul jour bu Macky Sall dul Nous Tamba démb démb démb Macky Sall Nous affaire Dakar Bignona japp nañ fa tay rek nañ Bignona ay nit nañ ay nit nañ ay nit plus de 67 personnes yo japp nañ nañ ay nit Dakar ak ñeneen ak ñeneen na 233 parce que les gens comptent que ñu nek ay 165 personnes bu ni la région yi ñi ngi di déjà Mbuur

165 personnes, ne fait que nous devons ravage 165 hectares, nous devons ravager les gens. Au moins, vous perdez. Nous devons 165, ravager 165 hectares. Faites plein de ragages. Nous a gagné 165 hectares balaa da nga dem lakk ci safara da nga dem fay safara boobu nga xam ne ravagé nañ cent soixante cinq hectares yoo xam ne ravagé nañ ko ci seen i kër yeeg seen i oto yeeg rajaxe fii toj fii teg ba duñ ko tal taal nañ fii boyal nañ fële taxaw dem def teg teg mais mënuñu dañuy jàpp dañuy restreindre facilement jàpp sañu leader toroxal wàññi wàcce bu nga rey bu non c'est-à-dire il faut ñun tamit ñu jóg il faut ñu jóg il faut ñu am fulla il faut ñu am fayda li amoon warul amaat te gor bu nekk war na ko bañ bor na ko bañ gis nga nit booy ànd moom da ngay gore da gore lan mooy gore mooy danga koy xamal ni boo ma nekkalee ci kër gi ma nekkale ci naaj bi boo ma nekkalee fii dama lay nekkal fële loolu mooy gor gis nga ànd day leer ànd mënuñu ànd ci ay négociation ay naxa sa danga ma jaral dee ma jaral la dee

lépp Macky Sall la affaire bi du ñoom Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang duus la Mame Mbaye Niang saxu day la man bu ma la génnee ngeen ay Mame Mbaye du ma la génnee ay Mame Mbaye Niang ay taf bii nii lu mu tudd Pape Pape Malick Ndour mais damay toog ma ne mais c'est foutu quoi ñun bu ñu yabee rek ñoom ay Pape Malick Ndour mbataxun ay ñoom Mame Mbaye Niang fees ñooñu bu ñu yabee c'est grâce à Macky Sall ñu nag Mame Mbaye c' pas égal Sénégal bu muy baax dëgg dëgg dëgg dëgg Mame Mbaye Niang mënul lëmbe foofu Mame Mbaye Niang tekkiwul dara dara dara du nisul xoolal du tus bu la Mame Mbaye Niang tooñee nga jéggi Mame Mbaye Niang jàpp baayam muy Macky Sall ñuus ko ba mu saw ay tànkam mais Mame Niang day nekk nit ñun ñoo noqul Macky Sall moo tax Niang yëpp ñu mais Mame Mbaye Niang bu la tooñee dañ ne bukki bu la tooñee nga yóotu gaynde rëkk fëgg bukki xam lu koy xaar bu boobaa ay tànkam la koy fajee wolof moo wax loolu mu ne bu la bukki tooñee nga jéggi ko dem ba ca gaynde ñuus ko ba mu daw bukki du ko taxaw di xaar day daw kon buñ toogee ba jamono jii man damay toog tiit Mame ñaan du nitu dara université la newoon cartouche fa dafa fa trois ans yu mat nekk UGTL di taxawaalu foofu di jógee yoof baayam nekkoon ASECNA yoof ASECNA la dëkkoon je me rappelle très bien yoof ASECNA di dugg ci ña ci ci euh, yoof wakaam yoof almadi wakaam yoof yi kii yi nu mu tëdd kaar njaga yi karu Ndiaga Ndiaye yi la doon jógee yof di ñew université ak ay dàll plastique ma ki jaraxam xees pecc ñëpp ko tekki wul dara du nitu dara cartouche ñi dak ab Macky Sall mu dem jappalé Macky Sall UGTL la néwon ragal di tapet ñu ko nar naar lañ ko do way naar boy naar boy naar boy nar ndax ragal ndax tit ndax tapet, ñu nan ko boy na mais même pas quelques moments ñu gis mam bay ñaan ci giri ñepp ñëpp ko gis ak tisetam bu forox mu tey ci giri li sonu ni ni ñu gis mam bay ñaan legi yor ay carte mam Mame Mbaye Niang bëgg ñu tok Ousmane Sonko jang bané ar am ay diplôme jaar ENA jaar ci université université Saint li nga xamni ni du n'importe qui mo fay dugg jaar ci lolu coono jang bané ar génn fonction publique Mame Mbaye Niang amul benn diplôme def politique ñu toog di comparer waa ji jàng ba ne ar génne ENA di ko comparer ak koo xam dafa cartouché même pas trois ans à l'université génn politique kese kooku affaire bi du Mame Mbaye Ousmane Sonko affaire bi Ousmane Sonko Macky Sall la Macky Sall moo jël l'affaire Mame Mbaye Niang di ko xeexee moom mooy xeex Ousmane Sonko donc du Ousmane Sonko Mame Mbaye lañ arrêté loolu Mame Mbaye et le peuple sénégalais la Mambé mon sac c'est 29 milliards, 600 millions, 530 000 francs CFA. Lola sac. 29 milliards, 600 millions, 530 000 francs CFA. Au moment où nous sommes, au moment où nous torts, au moment où je où nous. Donc c'est le peuple sénégalais qui doit se soulever, faire face à Mambé le voleur insolent. na Mame Mbaye Niang jaaree def lu mu def ki nga xamni mom moy pap Pape Malick Ndour bu taxul non mais Sénégal ci triste man bu gisee ay ñom pap Malick Ndour di tangal tàngam bi fi non mais Sénégal jang amul sens Sénégal dal tank que do na xaram di politique boobu mu ñu ci genn quoi man bu gisé pap Malick Ndour muy tok ni man dama nan way tok ki du Pape Malick Ndour taxul boy dem gin gi neew ci allah. ba nga xam bu ba mu amee courant sax yàggul pour pas malik Ndour mëna ñam taawon sax kaw nak lay ñew dugg ci saret yi jaar garage wàcc garage ñoro ñew ñew VLC fekk ñu fa ñu nek ay king mu taxaw di maral sañu dal pa malik Ndour moy ministre légui nga xamni buñ buñ doon wax na faaya faaya moy répondre meude meude pa malik Ndour bobu mom moo ñew fi jaar product sacc fay milliard mo ñew di di ben ben nak Ousmane Sonko c'est parce que ñun ñoo ñàkk fayda man man sama bopp sax du ma benn benn nag Pape Malick Ndour Pape Malick Ndour bu ma waxee mu wax ma saaga ndaayam ne ko booy du ma sa morom de yaa ngi fàttaliku ba ngay jógee ma daxul ca àll ba amuleen woon courant pour nga mën a dugg ci see bi da ngay jóge foofu dugg ci saret daw saretu fas wala saretu mbaam daw ba gaaras ñoro nga nga ñëw gaaras ñoro wàcc ñëw pour ñëw seetaan alliance concert kër gi buñ ne la jonkanal nga jonkon jógal nga jóg tëbal nga wàccal nga wàcc toogal nga toog noppi noppi nga ne wuri war a dem génn dugg université defoo fa ñaari at génn ndax ay affaire politique nga mujj nekk benn euh, directeur Prodac sàcc fay milliards ñëw taxaw ñu naan la léegi ministre yi ndax wër ci saaga ay ndey ay Ousmane Sonko waxtu ñaar ci Ousmane Sonko moo la def ministre loolu war na mën a tax man ma ñàkk sama fayda bay wax ak yow Pape Malick moo tax naan dama def opération rëbb dem ma xanaa xamu leen Pape Malick Ndour bu ma daxun man moo la am mër dinaa ñàkk fayda bay mbataxun bi ay ay ay lu mu ay opération rëbb dëmm kon xanaa ma saaga sama bopp duma moroomam bokkuñu classe bokkuñu niveau bokkuñu école Pape Malick Ndour ma may bàyyam maay staaram dama ko doon wax toogal muy toog taxawal mu taxaw tëbal ma tëb yuuxul ma yuuxu ab ah, vrai góor jigéen la du dara mais ñooñu ñëpp bu ñu yabee c'est grâce à Macky Sall moo ñu joxul cër moo ñu joxul respect donc bu ñu Pape Malick Ndour bëgg a wala benn mbambay ñaam bu la bukki tooñee nga yóotu gaynde rëkk fëgg ndayam Sénégal jóg leen ñu lijjanti li benn yoon mu jeex ngir yàlla lillaahi wa rasuuli jóg leen ñu lijjanti lii li fi amoon waru fi amat, ñii waruñu ñu yàpp wallahi bu jaaree yoon ñun ñii waruñu ñu yàpp affaire bi du ay mambay ñaa c'est Macky Sall qui est derrière moy def lo mambay Niang muy tëñëx tëñëxi di wax ñu dekk ko micro yi ce mambay Mbaye de rien du tout qui était là ci euh, euh lu mu tëddati ci gri assemblée nationale bu muy ñëw fofu mambay Mbaye Niang yorul oto en 2012 ndaga Ndiaye la dugg ba fofu mambay Mbaye te ma nga mer Mermoz la joggé kër ñom maram Faye Sall kër ñom Marème Faye la jóge jour boobu dugg ci ay Ndiaga Ndiaye wacc Ndiaga Ndiaye wacc dugg ci Ndiaga Ndiaye ba légui se retrouve être un multimilliardaire un multimilliardaire mais c'est pas normal donc Mame Mbaye doit des explications au peuple sénégalais bu ñu woowee loolu Sénégal ñoo wara a né ne Mame jox ñu suñu 29 milliards 600 millions 530 000 francs ñun peuple sénégalais bi joxuñu suñu xaalis ñu war a génn naan Mame Mbaye Niang jox ñu suñu xaalis Mame mu ne ah jox ñu suñu xaalis Mame Mbaye Niang du ay affaire Sonko Sénégal yëpp fes fa tepp na Mame Mbaye jox ñu suñu xaalis Mame Mbaye Niang jox ñu suñu vingt neuf milliards six cent millions cinq cent trente mille francs rond kon peuple sénégalais bi ñoo war a génn dem réclamer sen xaalis ci doomu xaram bi nga xamni doomu xaram la nak bu wul dara bu tekki wul non tous jaar université cartouché don ben multimilliardaire ñu muy nek en paix Ousmane Sonko du nek en paix mom mu dem ñibi ci jamm bay dem def ay conférence de presse toog ak ay bandi caga sulaar yu melni ay Farba Ngom yu ni euh l'autre là l'imbécile de Ndoukoumane nga parti politique bu ne jaar na donc gars buñu perte on ne peut pas être gars en prison ñun ñu tok mais génn leen ngeen xeex Ousmane Sonko vous a dit Macky Sall moo gën a lu yàlla sàkk mais Ousmane Sonko bu muy wax loolu préparé les gens ci Macky depuis ñaata yoon laa génn di laaj Macky rancunier la Macky Sall imbécile la Macky Sall xaj la Macky Sall bandi lépp luy lépp luy salte mi ngi ci Macky Sall reykatu nit la bandi la assassin la amul ngëm-ngëm amul diine ragalul yàlla gëmul dara pouvoir kese moo ko ñor li am bu fekkee ni mu ngi am moom maa ne leen ne Sonko du fekkee deux mille vingt quatre li am nii jàpp dajji génne extraire kaay jaar fii mu jaar fii kaay jaar fii mais sa bu fekkoon Ousmane Sonko nee na nous fekk tribunal foo ne foo tribunal comme concert yi ni ngeen di def concert yi nous concert yi ni ngeen di esplanade de fees dell concert esplanade de fees Nous ñu 29 milliards yu benn Nous pauvre type munu fa non. mais y' a problème les gars y' a problème il faut ngeen wax vivre comme des esclaves. Vous nous dites que vous voulez vivre comme des esclaves affranchis. Les amont tribunal vous faites qu'on concert la tepp ci bu concert esplanade vous Ousmane Sonko si pour tribunal à ak tribunal Nous, nous, nous, jox ma sama 29 milliards Mame Mbaye Niang jox ma sama 600 millions kii naan Mame Mbaye Niang jox wari ma sama wala wéef ma sama 530 mille mu fees tepp nit yu bëri a alors kenn mënu ko jàpp nit yu bëri kenn mënu leen jàpp nit yi bu ñu ñëwee fees dell mu ñuul kooku ba oto du fa jaar loolu kenn mënu leen jàpp mënul nekk mënul nekk. nee naa leen benn bant bale neex na damm waaye bale kenn mënu ko damm benn bant neex na damm waaye benn tronçon d'arbre loxo du ko damm kon booloo mooy doole bu ñu ñëpp génnee kenn bañ a def ñu fees fa tepp tepp comme concert lépp lu ñu xool lu ñuul la oto sax du fa mën a jaar dinañ xam ne lii tey du yomb mais bu yaraaxee wala mu yamambaay day yomb loolu moo tax ñu mun a Ousmane Sonko jaaral nii duma jaar fii jaaral fii jaaral fii loolu ça suffit ça suffit parce que li Macky Sall bëgg ñu ngi ko koy may trop c'est trop Macky Sall élimine qui il veut imposer ay nit jaaral fii jaaral fee defal nii defal naa wax naa leen ne armée bi li ñu ma wax mooy moo xamalal ñuy ne affaire yi ba mu ci ñun ñun dinañ ko relever. dinañ ko récupérer ci ñom xex ko gendarmerie pareil policier pareil ay xamna policier naa yo xamni ay militant Ousmane Sonko lañ billahi wallahi wa taalaahi ay gendarme yo xamni militant militants Ousmane Sonko lañ parce que dañuy voter dañuy voter donc il faut que ñun ñu jóg gars sénégalais mi nekk ci bitim réew waruñu leen gën waruñu leen gën a gore man tey dama dem dama rus ci mars tey bii Canada moins vingt cinq ay sénégalais génn bàyyi seen i njaboot ay jigéen ñii bàyyi seen i jabar ci kër ya ñii ànd ak seen jabar yi ay xale yu ndaw gars yi fes teb mu neej seen kaw neej bi weex tàll sedd guy man sama bopp damaa dem ba sama baaraam yi sax yëgatuma ko ndax sedd mais ma gis sénégalais yi résistant di yuuxu Macky Sall dictateur Macky Sall ma ne oh sama yaram di taw ma ne waaye wét goro wéttalu ko goro waay bu amoon garab sax ma ma mbëkk garab gi tàng jël wóorul parce que nit ki da ngay gore quoi directu koor day taw sa yaram bu kenn gënal sa bopp bu kenn gënal sa bëgg sa sa liberté bopp bu la ko kenn gënal na la sa bopp gënal sa liberté bopp na la gënal sa bopp na la gënal te sa bopp gënal la mooy nga jóg xeex li fi ne nga jóg xeex li fi ne chaque jour Macky Sall def lu ko neex te nee naa leen bu ñaaraatee doo ngeen ñàkk Sonko lañ ko bëggoon def ci suufu pont boobu tunnel boobu mu rëcc yàlla dimbale ko yàlla nag mënu la topp rek di la sauver non non sauve-toi aide-toi et le ciel t'aidera Ousmane Sonko yàlla mi ngi koy taxawu bu yàggee nag yàlla ne sonn naa rek peuple bi la topp di wax suba ngoon ko dégg bëccëg boo taalee sa live ñu ma cinq cent mille personnes te boo wootee mënuñu fa mat deux cent mille personnes bu yàggee mu ne la ah man de maa lay dimbale mais vraiment ah, ndimbal na ca fekk loxoy borom say nit dañu war a génn say nit dañu war a dëggal seen bopp seen say nit dañoo war a jëmmale seen bopp jëmmal seen bopp taxaw face à l'oppression face à l'injustice dafa càqe trop ba pare ñoom ñi ngi dem ñoom ñi ngi dem chef yi ñi ngi dem di wax yooyu kii nga xam ne moom mooy commandant bi jàpp Ousmane Sonko di ko du ko jéem a toroxal loolu la dégg na moom moom ay caga la ma ba xam-xam ngeen ko boo leen demee saint yi xam nañ ko bu baax moom moo fa newoon commissaire sor après na commissaire Pikine imbécile bu bon le commandant Fall Satchela, la satch. tekiwul dara ab satch bu la Saint-Louis ñom Aba nous Aba mbay xam xam bandi salte la nu koy nonu Aba am restaurant bu Le bu Saint-Louis caga bi dana ñëw foofu imbécile bi nii commissaire bi nga xam ne moo yuuxu booy naan daj leen bunt bi sàcc bu mag a ngi noonu trian bu mag day wër benn cagaam for benn cagaam jël auto police bi ñëw ba ci euh, restaurant ñoom Abba la mukkee ñëw dugg fa commandé lu ko neex ak ak ak benn càgg bu muy indi lekk ba mbaqam fees mu naan ji génn taalaat otom ne ay sawaay maa ngi dem musul fay musul fay ki ngeen gis nii le commandant Fall mu jàpp restaurant boobu restaurant amul fay saa yu xiifee jël benn cakam ànd ak moom ñu dem ci restaurant la mukkee bu ñoom Aba mbay ak ñoom Duudu Mbaye son frère toog fa lekk ba mbàqali fees ak caka bi naan ji bu mu soxla ne leen ok à bientôt chaque jour Duudu Mbaye remarqué loolu noonu ne ko mais yow hey <laughs> yow lan moo tax yow doo fay Falla waaye man xam nga man la man la commandant Fall man maa géré fii nii la police mu ah, xanaa doo nit lan moo tax nga ñëw ci restaurant bi di lekk ba suur naan ba maane di dem yow yaay kan xanaa fii mooy restaurant Amadou Faye waa ji mer ci ak kanamu benn càgg mu indoon mer ci waaw yow man ngay a fayee ko yow nga xam ne man la commandant commandant Fall yow da nga xam noonu mu dem jël auto police ba ñëw gaare ko ci restaurant ñoom Awa Mbaye la muke xam nga sénégalais rek daa ragal policier man loolu moom xaw ma suñu maam la woon xaw ma jaaree woon su suñu maam yi la am na am daal lu suñu maam yi ak ak ak ak homme na am na c'est une longue histoire ku ko fiy doo fi doo waa ji nu mu def commandant bi ki ngeen gis noonu ñëw gaare auto police tous les ay booyam ñu gaare auto police bi ku client ne la pardon carte d'identité waa ndar géej yëpp ak ña fay jaar naan dañuy jéem a jaar benn passage ñëpp xam le Mouquet commencé vite waa ji day ñëw gaare auto police moom ak ay élément ñu toog buntu restaurant le Mouquet euh, jàpp seen self lekk dule parce que dàq nañ ko fa nee nañ ko doo ah, ko fi mu ko ci kanam kenn day na te ngeen xam ne xoolal man ngeen di fay ko man ko man nax bi xoolal faal mu dem jël ay élément ñëw teg bu euh, euh, waa ndar yeeg xam nga noonu loolu du ndar sax Sénégal la ku ñëw ne kii gis quarante ah ay gars yi ngi laajte carte d'identité buntu restaurant ba gars yi kenn ñëwatul ñëpp raxasu ba set kenn ñëwatu fa mu commencé vite loolu moo tax Doudou Mbaye ñëw ne ne mais gars yi da ngeen di jóge fi suñu clients yi kenn toogatul fi kenn ñëwatul restaurant la mukke bu nekk soor kenn ñëwatu fi kenn toogatu fi kenn jaaratu fi lu tax mais da fi jóge gars yi ne duñ fi jóge ndax ceeb bu ñu xañ seen commandant ñu raak foofu raak bu tar lek ceebu jamur nan jiw jamur nan doho jamur yok sa cagat dem sa yoon ko ki gis ni ma yuuxuwaate ni bandi salte bu salté sax mbaq bi yëpp bo len gisé biir bi amul abdomino ay biiru ceebu ñom abaa mbay la ay jiw ñom abam mbay la ay bisaabu ñom kër ñom abam mbay ay jeu de bu ñom kër ñom abam mbay la japp di lek lek ceeb tay mu commandé ceeb suba mu mu commandé suba kanya ginnaaw suba domada di dor ak ay cakaam di dem léegi nag loolu Doudou Mbaye jàppanteeg ñenn ñi foofu raak Ama mbay ñëw fekk ko ñu dóorante ay dóor waa kër ga dóoranteeg ñoom bay bu a dee mu ñëw mënate leen génne leen seen bir kër mënate Ama mbay mënate Doudou mbay jël leen dóor leen ci kaso bi tëj leen ci kaso bi Ama Mbaye bu kaso bu mu tëdd kii moo ko tëj Fall mi moo ko tëj ci kaso bi comme ça ñëw restaurant jàmbur di fa lekk ba sa biir fees ak say caga di dem ñu ne la non li arrêt nga ñëw indi commencé indi say nit ñu euh, xañ euh, euh, yi ne dootuñ fi duggati clients yi di daw kenn ñëwatul restaurant ba commencé daanu gars yi ne la dañ fi jóge parce que amoo droit di gaare fii sa auto police jàpp sañuy client di leen dàq ci laajum carte d'identité di leen yóbbu xool mu xeex ak ñoom ñoom ñu xeex ak ñoom Abba ak ñoom Doudou Mbaye xeex ak ñoom mu ñëw indi leen mënate leen yóbbu leen ñu defeere leen

lekk ceebu jàmbur yi ci restaurant yi di taxawal ci ci restaurant yi ak say caga di lekk seen ceeb yi di naan seen jus yi imbécile nga taxaw fi naan da ngay yuux waat yow ko yuux yow yow bu la gàcce doon rey dee nga bu ko tué sàcc bi nga doon trian bi baadoola bi di dugg ci restaurant jàmbur di lekk ndey seen ceeb yi di naan seen jus yi di yokk say gel day fa daw daw dem sa yoon nga taxaw fi naan da ngay yuuxu waate yow yow xam nga ne bu doon dëkk bu yoon boo taxawoon naan da wax wax Ousmane ko këf nañ sa ndey ba yóbbu la bu yàgg imbécile nga demal nga fay le Mouquet lu nga leen yoreel demal imbécile tu dois au restaurant le Mouquet des centaines de milliers de francs CFA yu nga war a fay joxoo ko taxaw naan da ngay menacer ak da ngay bandi bandul imbécile fils de chien que voleur biiru riba saaku dëtt saaku deret xaj bu dee bi ñoom ñëpp ils roulent des casseroles ay nit yu salte lañ ay nit yu tekkul dara li jaay nit yi doole di jaay nit yi ay sañ-sañ pour yokk garab pour am ay xaalis ñun ñoo waaye loolu gis nga yooyu noonu sax ay di ko raconté dafa yomb hey jóg leen ñu lijjanti lii gars yi lillahi wa rasuli jóg leen ñu lijjanti lii jóg leen ñu lijjanti lii jóg leen ñu lijjanti lii lillahi wa rasuli trop c'est trop lu ëpp tuuru mbéjum kanam borom a koy fajal boppam bandi salté yii nga xam ni ñoom Antoine ñàkk jom ñoo leen di yónni ñuy bandi bandilu mais loolu dafa yomb dafa yomb commissaire bi musul baax musul baax kenn ku taxaw naan kii ku baax la xamoo ko dem leen ngeen laaj Aba Mbaye xam na ko bu baax moo ko dóoroon ci kaso bi ndax lekk seen ceebu kër ñëw ci kër jàmbur restaurant jàmbur bu nekk ci biir kër ga nga lekk ceeb ya naan si yow say cagga chaque jour bu ñëw indaale benn cagga bu bees kooku xaw ma nan la baaxee nan la jullitee ba léegi fayul xaalis jàmbur ñu boole ci mu jaay leen doole dugal leen ci kaso kooku nu mu baaxee kan mooy négocier naan kooku daa baax kon kay nañ ubbi kaso bi yëpp génn ndox seen yox <laughs> bu baax rek kooku de bu baaxee man xaw ma ku bonati bu baaxee kon moom bonati ak histoire bi ma leen raconté lii lépp waa Saint-Louis xam nañ ko bu baax a baax a baax bu baaxee ku baaxati bu baaxee kon moo bonati kon yëpp bu baax de kon yàlla na fay safaraam ba xam ne du fi duggat kenn bu dee nit bu mel noonu mënu dugg safara moom <laughs> kenn du duggati safara ndax ñu ko gën kese kese kese te kooku noonu euh, mooy chefu bib moo jiite waa bib te toroxal Ousmane Sonko moo ko taxoon a jóg ndax ci suufu pont bi la ko doon extrait yóbbu ko euh, réeroog moom du dara ci ñoom parce que Macky Sall ci liquider Ousmane Sonko la jógte il faut ñu won ko ni billahi Don't fi liki wallahi Macky Sall boo naree Ousmane Sonko di ñu ba paré ñun ñëpp nga do ko il faut l'Olou. lenn rek sauver Ousmane Sonko sénégalais di le 16 bi ni di ñëw ngir lillahi wa na am nu mu million cinq personnes dans les rues le 16 bii di ñëw Ousmane Sonko dafa woote woote woote woote ba sonn dafa woote ba sonn le 16 bii di ñëw mais na Sénégalais yi génn lillahi wa rasuli wax ji jeex nag buñ ko mënul ñu teel ko wax nit yi nit yi lijjanti leneen le 16 bii di ñëw na Sénégalais yi génn xeex na Sénégalais yi génn xeex. yooyu le message là je vais Euh, ok en attendant sax ki ma leen woon nii anam xaaral ma leen ko <laughs> ñun ñu ñëw occuper suñu occuper suñu euh, voilà ñi tout à l'heure dama xëccoo comme man damay dugg ci seen système bi yëpp <laughs> ma ne leen. Euh, ñi ay tubaab lañ gis ci euh, marche bi te waxoon naa leen israéliens yi ñooy forme booy yi loolu waxoon naa leen ko israéliens yi yi nga xam ni Gabi Peretz ak Idan Peretz Gabey baayu Idan ñoom ñoom lañ jox quartier autre secteur de la gendarmerie quartier maanaam fi nga xam ni moom mooy head quartier bu gendarmerie ñoom lañ ko jox ñu dàq ñu Moussa Fall yóbbu leen almati xam nga ñooñu am nañ doole de papa ak doom biir ville suñu gendarmerie nationale teg bi bopp bi ñaar papa doom ñoo dàqalu Moussa Fall ak képp kuy gendarme ñu jëlee la biir ville yóbbu la ba almadi ci àll toog fa ñoom ñaar di ko defaraat ak matal di fa dugal seeni machine di def écoute sénégalais di leen topp di leen tracé foofu loolu foofu loolu fi lépp fa la am fa la caméra nekk lépp ñoom lañ ko jox haut secteur de la gendarmerie au commandement de la xol xool leen loolu au commandement de la gendarmerie seen siège social ñaari nit papa ak doom tëbal leen fa raxas leen ba ñu set génn leen fa ñoom ñëpp ñu jéem ñu dàq leen yóbbu leen almadi nee dem leen toogi foofu ñoom ñu toog fa jàkkaarloog palais de la république nekk biir ville au cœur du Sénégal indi fa seeni matériels yu sophistiqué en collaboration avec Orange ñu toog di déglu numéro téléphone yi ñëpp di déglu déglu écoute yi di déglu appel yi di déglu di noter di teg ñëpp lañ yor ñëpp ñuñ soupçonné ñu yor seeni numéro xam nañ adresse est-ce que est-ce que vous vous êtes demandé nan la gars yi di def ba mais Hannibal Djim buñ ko bëggé japp est-ce que yag nañ tak tak tak lañ dem buntu kër Hannibal Djim di ko fa xaar mu génn ñu keuf yobu mais ñu def ba xam kër Hannibal Djim nuñ def fa xam kër nit dof ku ñu bëgg a jëli suba suba suba ñu dem jëli la ku ñu bëgg a dem jëli suba donc ñoom am nañ ñëpp ñi ngay gis nii ñëpp yor nañ seen numéro ñu ngi leen di déglu am nañ fu ñu dëkk xam nañ lépp tout lépp ndax Idan Perez ak baayam Gabi Perez ñooy déglu senegal yi di topp sénégalais yi di leen sous écoute di leen rëbb di jéem a accidenté loo ay oto di leen jéem a di leen agressé lépp ñoom la donc ñun moo laa ba ma leen waree wax loolu wax na leen ko ñii ak ñii ak ñii ak ñii ñi leen di déglu ñii ak ñii xam nañ seen kër yi xam nañ seen kër papa yi xam nañ seen kër yi ñuy luwee parce que fu ñu leen di jëlee du seen kër papa yi de seen kër fu ñu leen di luwee néeg ngay luwee sax fenn làqatu di dem ñoom xam nañ fa nga topp nañ la waxam ba romb amul kuy dox Sénégal ku xamul sa kër sa numéro téléphone et tout ça te ay Iran Peretz la Gabi Peretz ñu jël ay israéliens indi leen ñuy former suñu booy yi won naa leen ko fi ba tàyyi photo bi ñu nekk ci àllum kaañ di forme booy ñoom ñoo nekk nii ñoom ñi ngay gis nii ñoo nekk nii ñoom ñoo nekk nii booy yi ñoom ñoom ñoo nekk seen chef yi ñoo nekk nii ñi ngay gis nii ñoom la ñi nii ñii ay israéliens lañ du ay ay ay non c'est des israéliens qui ont former suñu boy yi ñoo nek suñu boy di leen di leen former nu ñuy sénégalais wala ñuy sénégalais et je vous l'avais montré xam dama koy peut-être jox mais wonon na leen ko jëlon naa ko won leen ko ne ñi ñom ñoy former suñu pour ñu ray ñu ngi Gabi commandé ils ont attaqué donc lii du ay n'est-ce pas ay constat il faut ñu bàyyi constat il faut ñu ont fait ak ñom Ils yi ngay gis nii Ils ont fait ngi ni du ont ñoo leen ñi ñu wa bible xol ont bi ngeen auto yi ngeen fait noonu ñi ngeen gis nonu ñi ñoo ont di li Ils ont fait Gabi Peretz moo fa nekk Idan Peretz c'est des éléments bip mi ngi nii bip bip ba ngi nii police baa ngi nii ba ma leen di wax waxu Idan Peretz Gabi Peretz li photo bi naa leen ko ne ñoom ñoo fi indi ñoo fi indi seeni ponkal reykatu nit yii di xeex ak yi lañ fi indi ñuy forme booy yi jàpp booy yi yóbbu lii yëpp waxoon naa leen ko boo waroon leen photo bi seen chef yooyu ñoo nekk noonu ñooñu mooy ñuy former booy yi dañuy ñëw ci terrain bi xoolaale booy yi leen laaj na lañ ñoom ñoo ñoo waroon exfiltré Ousmane Sonko ci suufu pont woowu ñii ñoo waroon ñii ñëw ñu fa lu dul extraire comme ñoom dañ koy def. ñépp xam nañ Israël ci yooyu ay extraire nit yóbbu ko liquider ko noonu lañ def Didier Badji mais noonu lañ def François Mancabou noonu lañ def Fulbert Sambou Fulbert Sambou ci biir armée bi la te kon ville camp bi mais dañ ko extraire ñoom ñoo extraire Fulbert Sambou ñoom ñoo extraire Didier Badji te li ma leen waxoon ba léegi dañagul mën de xaw ma lu ñu may waxal waaye lu ma wax mu nekk. ba ma sax ne Macky Sall je te défie boo ma génnelee Didier Badji ma bàyyi live boobu Sénégal ñi ngi doo ko yóbbu Didier Badji maa ñëw ne leen es eh, Didier Badji gars yi dañ koo sotti acide doo leen ko gis <laughs> ba léegi ma am dëgg de Sénégal wërngal këpp 17 millions maa ñëw ne leen Didier Badji boo leen ko gisee ma bàyyi live boo leen ci tegee bët ma bàyyi live ba suñu jonn yàlla tey Didier Badji kenn tegu ci bët mën na leen nañ ko sotti acide ba mu seey ñan ñoo def pratique yooyu les israéliens c'est les sionistes ñooñu la dégool doon xeexal gis ngeen nu leen dégool def euh, euh, euh, Hitler du moins Hitler gis ngeen nu leen Hitler def dañ sadik Macky Sall ñu lay indi pour ñu ñëw de ñun ñoo ñu extra ay nit extradition wala exfiltration génne leen yóbbu leen rey leen exfiltré euh, Fulbert Sambou ko ci Camp Diop Camp Diop guddi te beneen militaire Fulbert Sambou nañ ci biir extraire ko fa té lañ ko def quand Jalle Diop lañ ko fekk sol militaire nga tenue militaire moy sen tenue bleu yooyu ñuy sol militaire yi sen seen maillot maillot la sol maillot blouson yoy la sol Fulbert Sambou mom lañ fekk gaay yi ko ne ko keuf ndaf calmement un militaire la woon boobu jël nañ nañ ko extraire ko

pexe yi ñu am ak nañuy def yàlla ci boppam sax wax na ko ci alxuraan donc ñii du ñii ñoo xam ne dañ leen di xeexee wax ba ma laajee <clears throat> comme nu ma koy defee ci message bi ont ne waaw bon ce sont des sénégalais bon teint montrons-les ils commencent à manipuler disant que c'est des tubaab oh non mon frère ce sont des éléments des forces spéciales nee na ay élément force spéciale lañ nee nañ gars ñii ay élément force spéciale <laughs> ma ne leen c'est pas des éléments force spéciale kon yéen gars yi leen di former ñu doon former gars yi dañu leen indi foofu mun a ma non c'est des c'est mu ne ñii ay militaire ay ay gendarme sénégalais lañ même bu dee dañoo ay gendarme sénégalais lañ mu ay gendarme mais ñi ay israélien lañ ay israéliens ñii ñoo waroon exfiltrer Ousmane Sonko ci suufu pont bi c'est avec mom té li bu amaté dañuy ñak dé parce que Macky Sall waru ñu gëna dévoué waru ñu gëna bëggu né mom day ray Ousmane Sonko et je l'ai dit Macky Sall pexem pexem moy Ousmane Sonko par tous les moyens 2024, mille du fi toog du fi nek lénen lañuy wax lepp lu Macky Sall def rek am na lu tax chaque jour ñuy xool pexe yu ñu éliminer waaj soit ñu def bouclier soit mu moytu ñii Irène Perez Gabi Perez ñoo leen fi indi des israéliens comme eux des sionistes ñoo leen fi indi ñoo leen jëlee Israël indi leen ñuy formé boy yi nan lañ leen ni ñuy extraire ni ñuy def moo tax yaa ngi koy doo ko gis c' est la première fois dans l'histoire nga gis boy yi taxaw indi armée wu yor ay caisse yoo xam ne ay détonation lépp lañ yor indi. te te te wax ak Ousmane Sonko daal di tël benn dóor lañ dóor mu tas loolu du xeer am naa gu naan ay xeer yooyu ay genre détonation yoo xam benn dóor moom la ñuy dajjee ay buntu ak yooyu nii lañ def tël benn rek mën a cërëj wàcc lépp wàcc dox boobu trian boobu ñëw sàcc boobu sàcc katu bu jeun bi ñew taw waaye dégagé ubbi len ko jël len ko sàcc katu bu jeun ñi ñew jël Ousmane Sonko nonu parce que dafa raté ci souf lañ ko doon jëlé ci suufu pont bi lañ ko doon jëlé dafa raté wallahi billahi bu doon auto bu nek ci kanam bobu Ousmane Sonko di caméra gaay genn nañ ko fofu calmement dem yóbbu doonuñu ko yóbbu këram de dafa échoué de le plan a échoué mais Ousmane Sonko doon doon ci eh, haute mer la doon finir haute mer posone ko sànni digg geej xooli géej day boo bu ko waxee mu jaar fi nag jaar fi nangam ak nangam ñu joy ko ñaari fan ñetti fan mais lolu il faut ñu moytu ko buñ ko naree def ni léegi ñu joy ko de bu ñu naree def nii ñuy defee ko naree def ñu joy Ousmane Sonko ñaan ñu ko yàlla dëggal ko ci une semaine mu am on a kenn waruñu seetaan ñi jàpp leader di jàpp nu mu leen neexee di nous di dugal fu leen neex di leen def lu leen neex loolu dañ ko war a arrêté donc encore sama gars yi li wax mooy nañ gën a doole nañ gën a bi a booloo nañ taxaw a wu pour la résistance nañ gën taxaw pour la résistance nañ gëna won Macky Sall ñoo la gën bëgg fouf li ngay woté lo bax ñu ñeer ko té lo tangal ñu nan ko ñoo la gën a tàng yoon dañuy boy dañuy bax donc gaay détermination détermination résistance appel à la résistance Ousmane Sonko néna ñu am fit la soxla Ousmane Sonko nee na ñuy dem la soxla Ousmane Sonko nee na ay kamikaze la soxla Ousmane Sonko nee na yu am dof la soxla Ousmane Sonko nee na yu farlu la soxla Ousmane Sonko nee na ay Baay Faal la soxla Ousmane Sonko nee na gars yu Pastef la soxla Ousmane Sonko nee na gars yu crazy la soxla Ousmane Sonko nee na gars yu loolu xalaat sax ay lii conséquence Ousmane Sonko nee na ay gars yu xaptalu la soxla loolu la wax de nee na ay gars xaptalu laa soxla ay gars dof laa soxla ay gars yëgul bakkan ay gars yu lem nafsu toog ci ay laa soxla ay gars yu dul gis dara que du feu briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal woyal nañ leen ko te pare naa sangoon boobu noonu dinaa ko mixé jox leen ko briquet almet pneu essence taal wax naa leen ko briquet almet pneu essence taal voilà briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal gars yi briquet almet pneu essence taal